À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone actualité ci euh, de la semaine bi maanaam le chef de l'État le président euh, président Macky Sall qui s'est rendu au niveau de la banlieue dakaroise notamment à Kër Massar euh, qui était la première étape de sa visite jëm na ci wàllum inondation yi inondation yooyu nag moo waral njiit réew mi def ci ay conseil présidentiel def ci ay ndaje joxe ci ay instructions ak gouvernement bi joxe ci ay mesures mu sa demal boppam nag Kër Massar man nag ma jàpp ne président Macky Sall nag la ko yóbboon Kër wax département département euh, départementalisation maanaam def Kër Massar ab département ma jàpp ni loolu échec la ci wàllum euh, discours am euh, je ne parle par de ce maire maire bi nga xamante ni il a été hué moom Moustapha Mbeng parce que c'est un maire qui n'a pas répondu aux préoccupations de ses de ses administrés mu nekk gàcce ma jàpp ni président Macky Sall erreur mënul passé nga ñëw ci ay nit ñu nekk ci jafe-jafe am jafe-jafe bu metti nekk si tiis nga waroon a sol mbubbum xaftaa euh, mbubbum tenue militaire nekk en guerre contre ces inondations ni nga ko defoon si ay visites yu njëkk ni nga taxawoon première conseil présidentiel jëmale ko ci inondation yi taxawoon wax discours ne nag ah du durant les dix années yëpp mën naa jàpp ne lu jëm ci wàllum inondation moom dafay jeex booba sóoraale woon na yàllaa nga fi nga waxaat discours ne le président ne peut pas arrêter les siennes président ñaar discours yi wute na de maanaam kon xam nga ne ba ngay def seen fàtte woon nga ne yàlla tamit mu ngi fi parce que boo ne le président ne pas arrêter le ciel yàlla moom moom asamaanam moom ndoxam moom suufam moo xam waxtu wu mu ko neex la koy taw fu mu ko neex la koy tawe euh, bus bu ko neex la koy tawe suñu borom moo am prérogative yooyu yow ni nga amee prérogative si sa constitution bi mu la may ma jàpp ne. Kër Massar donte nekkoon na seen doléance à ce que sur le plan administratif acte administratif que ñu nakk département mais aussi ma jàppoon ne loolu erreur la ndax ku xam Kër ma Massar xam ne Kër Massar c'est la commune de euh, de de de Yeumbeul Sud qui a donné naissance à Kër Massar Yeumbeul Sud moo joxe donné naissance également à Malika soo waxee départementalisation il y a un problème historique qui va se poser les euh, population qui habitent au niveau de Yeumbeul Sud également vont se lever est-ce que du indi yeneen problème déjà sax au niveau de la euh, de, de ce pays j'allais euh, que ne lu dëkk bu ci mel ne ñani ñani ña ngay révolté wu demander à que ñu defal leen ñu ñu ñu defal leen acte administratif commune loolu la ñuy sàkku seen gox mu jàpp ne problème yooyu yëpp sax day gën a posé wu parce que acte 3 de la décentralisation c'est limite conséquences yi mu am moo feeñ ci gox goxaat yi on a fait un acte 3 sans pour autant évaluer l'acte 1 et l'acte 2. Parce que depuis 1972, avec la création de la ville de Saint-Louis, ñu ñëw en 96 avec beneen acte bi d'ailleurs sax ci anne boobu la Kër Massar juddu woon ci en 1996 lañ ko def commune na wax Kër Massar yàgg na donc nga ñëw ci acte 3 lorsque vous êtes arrivé au pouvoir ñu poser que je pense que tey jii évaluation boobu la ñu waroon a def autrement que di def ay discours ne dañuy départementaliser foofu soxla askan mooy fexoon ba ndox moom dix treize milliards yi dañ koy génne ci trente milliards yi joxe ko waa ONAS ONAS bi nga xam ne nga yaa ngi demandé un pré rapport boo xamante ni dañu war a gëstu saytu xaalis boobee ñu ci defoon di sept cent soixante milliards yi donte c'était prévu pour les dix années durant dix ans deux mille douze deux mille vingt deux ma jàpp ne saytu googu moo ëppoon solo. xoolaat la des parce que at yi des na ba tey parce que yu temps la moo ci demagul li des naka la ñu mën a defee ba yi am problème ndox ñu def ko waaye ba ñuy indiwaat yeneen xaalis day mel ne ko xaalis bee moom waxatuñu ay waxam kon président loolu da nga ko war a leeral pré rapport boobu audit la ñu war a def ci ONAS ñu xool xaalis bi fan la nekk ba pare avant que ñuy joxewaat yeneen treize milliards ma jàpp ne vous allez nu lancer dans une des milliards parce que depuis at ay ay weer a ngi ñu on balance ci ay milliards yu jeex di ëlëmal di lëndëmal Sénégalais yi. nu ñuy répondre aux préoccupations des populations askanu Kër Massar ma duut leen baaraam parce que tamit nit mobilisation ba ma amoon ba ma gis foofu c'était une coloration politique alors que tel ne devait pas être le cas sénégalais dañu xam li ñu bëgg it tamit xam li ñu mérité wu mais fekkente ne tamit ñoom ñooy nangu ñu jox leen 5000 wala 4000 ñu ñëw mobiliser wu taxaw yuuxu wax leen neex ëllëg ñu souffrir l'enfer ñoom la nañu xam nag li ñu bëgg. fekkee nag dañoo mérité su france boobu ñu wax bu dee mérité wuñ ko ñu wax mais lu ci mën di am mooy président de la république a échoué si son discours à Kër Massar que di fi génn ay xaalis ak départementalisation là c'est un acte politique bu muy posé bàyyi ko foofu askan ma nekk fa nag di jax-jax yi ndax li ma ko waxee sànq yëmbal sud nga fa Malika nga fa ak yeneen gox-gox yoo xamante ni ek ak leader politique ma jàpp ne sax COP Parti démocratique sénégalais taxawaay ba mu fa amoon jàpp naa ne sax ak yeneen proposition yu fa am euh, ak Amidou xot gis nañ ko bu baax na mi euh, implanté woo à Kër Massar yeneen gox yi foofu noonu ku ne cuuc mu wala euh, mouvement bu taxaw mu wala ma jàpp ne acte administratif boobee dafa dafa am lu lu ko lu ko lu ko lu ko ëmb ci ginnaaw mooy politique la moo ko lal loo xamante ñoom bëgg nañu fexe ba positionné wu sur le plan boo xamante politique au niveau de ces localités ma jàpp ne bu doon département rek mooy faj <laughs> mooy faj ndox mën ma jàpp ne ni kon région yi fu ñu jë la région de Kaolack est là et qui fait face à des difficultés liées aux inondations tey la ñu gën a nekk ci problème mu ndox ak yeneen ak yeneen i gox département ne peut pas solutionner les problèmes liés aux inondations ma jàpp ne foofu noonu day mel ne ni yaa ngi bëgg indi problème commune yi parce que compétence communes yi ce n'est pas de gérer les inondations ce sont les structures de l'État l'ONAS ak yeneen AGEROUTE ñi nga xamante ni dañuy am liggéey ñu def au niveau de ñoo yore